jërëgéen jëf ubbil ma xët mu njëkk 18 safar quotidien di yéene kaay wax lu jëm ci mbiru màggal gi di génn ñetti fan yu nekk yéene kaay nag ma nga fay wax tukkim nemmeeku bi nga xam ne ministre

génne na moyens yu mag ya fas yéene ngàcc ndox ma nekk ca diwaanu Mbàkke bool ba pare lancé plan d'urgence d'évacuation des eaux di plan bu jëmmal fexe daal ba ngàcc ndox ma nekk ci diwaan ba yéenekaay bi di kat na ciy waajal màggal gi ak malem Touba min jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août atum kon nag murid yi takku leen jóg te waajal màggal gi